ñu lay jaajëfal bu baax a baax di dalal gan gi euh, di euh, Mbaye Jacques Diop comme ni nga ko waxee Fatou Thiam Mbaye Jacques euh, doon conseil technique en communication ca ministère des sports journaliste également Mbaye Jacques ñu lay nuyu di la dalal ci réew mi. waaw soxna Elisabeth maa ngi lay nuyu di la fay di nuyu sa auditeurs yi di nuyu aussi sama sœur boobu Fatou Thiam. Mm-hmm. di leen nuyu yéen ñëpp di leen jox seen wàccuwaay. Mm-hmm. gannaaw bañ la dalalee ñu wax ci li nga xam ne mooy yees jamono ji ci CAF njiit bu bees tey ji euh, football africain euh, lan la ñuy xaarandi gannaaw bañ ko falee moom mii di milliardaire euh, sud-africain bi. waaw xam nga d'abord dañuy lu ñuy njëkk def mooy rafetlu suñu compatriote bi nga xam ni muy maître Augustin Senghor président de la fédération sénégalaise de football bu mm. ñu fal comme premier vice-président muy lu gulet maanaam loolu jànq la lu gulet pour la première fois ci histoire Sénégal ci histoire football Sénégal mm-hmm. ñu am un président bu nekk premier vice-président de la confédération africaine et sur le gâteau ñu am aussi koo xam ni pour la première fois mi ngi nekk dans le bureau parce que ñun mosuñu am membre bureau membre comité exécutif wala ay membre commission tey bu ko amee dañ koy rafetlu di ko féliciter di ko ñaanal yàlla aussi euh, raay bi en tout cas confiance bi ko ay peeram investir ba mu nekk premier vice-président mm-hmm. yàlla na ko yen bi yomb trop mu mel ne di ñaanal aussi sénégalais yi ñu gën a xar yu ñaanal ko yàlla encouragé ko pour jàppale ko aussi parce que nit buñ ko falee bu xool ne dañ ko fal wala parce que privilège da nga koy xool ci foo mën koo ko mën a jàppalee wala foo ko mën a ñaanalee mu réussir mission am nga ñaanal ko fu mu réussir mission parce que loolu la ñuy ñaanal bépp sénégalais bi nga xam ne ngi ci ay instance ñu leen ñaanal ñu réussir seen mission xool nu ñu leen war a mën a jàppale ñu jàppale ci wàllu woowu nag di nga xam ni peut-être mooy euh, élection mu sepe hmm. euh, soo xoolee kaaf dafa am benn instabilité bu fa amoon parce que Hayatou instauré woon na fa benn stabilité de quatre-vingt-huit presque à deux mille euh, seize xaw ma dix-sept mu falu ñu fal ko donc mu mu defoon fa benn stabilité mais hmm. Ahmad ñëw bi Ahmad ñëwee mu am problème instabilité parce que boo xoolee ci ñeenti at am na ñaan ñaari président amul benn instance bu ko am dans le monde loolu moo lay won donc kaaf war nañu xoolaat seen gouvernance war nañu xoolaat seen doxalin war nañu xoolaat seen fonctionnement mais war nañu xoolaat seen management parce que UEFA. Mm-hmm. muy CONMEBOL ak muy en Afrique en Asie ak bu ñu falee da nga gis koo xam ne fa toog juróom-ñetti at wala fukki at ak lu topp dina am ñaar wala ñetti mandat la preuve gis barki démb rek tamaa baax éliraat nañ ko membre du comité international olympique donc ñuy xaar ci moom parce que soo xoolee tey dañu nekk dans un contexte boo xam ni moom la ñuy wax socio économique politique ci ci kii bi ci siècle bi ba pare ñu xam ne léegi dafa am benn remise en cause loo xam ne moom lañ doon wooyee monopole gestion organisation au niveau de la CAF ba pare tey boo xoolee sport am na benn dimension économique boo xam ne dafa war a am benn modèle de régulation pour le football modèle de régulation boobu lan moo ko mën a doxal gouvernance boo xam ni dafa baax parce que bu njëkk dafa amoon lu ñuy wax Euh, le modèle traditionnel maanaam mono anateur mono kii mono acteur de gouvernance mhm. te mono acteur boobu nit ñi dañ dem boo xam ne dafa wane ay limitam ay incapacité pour résoudre moom kenn par exemple les problème de fonctionnement et de développement de la confédération africaine ñuy xaar nag ci Motsepe mu indi loo xam ni lu bees lay doon lu bees lay doon parce que xam nga tax lay bees lay doon dañu bëgg ñun. Mhm. mu am benn construction progressive boo xam ni dafay jox légitimité en tout cas acteurs yu bees yi maanaam ñi nga xam ni ñoom la ñu fal ñu jox leen légitimité boo xam ni ñoom war nañu mën a doxal le football réunir ko parce que soo xoolee CAF dafa demoon presque vers la déchirure déchirure bi mooy lan mooy tey. soo xoolee ñeenti candidat pour la première fois mu am ñeenti candidat confédération ñett yëpp jógee Afrique de l'Ouest et soo ko analyser sous l'angle géopolitique sous l'angle géostratégique sous l'angle diplomatique da xam ni par exemple Sénégal la woon euh, Mauritanie Côte d'Ivoire ak Afrique du Sud mu njëkkee ci Afrique du Sud parce que moom la ñu fal président euh, Motsepe Afrique du Sud dafa am influence en Afrique australe am influence en Afrique de l'Est am influence en Afrique même Euh, central. Hmm. ba tax na aussi soo xoolee dafa am influence au niveau de l' espace anglophone muy le Commonwealth ñuy wax ñun francophone yi la ñuy wax mais Commonwealth ñoom am nañu mainmise foofu ba Afrique du Sud seen ñoom signé woon nañu pétition ba le plat là de l' Afrique australe ñoom ñëpp seize pays yooyu yëpp si woon nañu pétition pour soutenir Motsepe ñun ñëw fii déggoo amul parce que ñetti candidat la et Augustin déggoon ngeen ko muy wax moom c' était la réunification et le rayonnement du football ku wax réunification rek mooy da nga dajale mbooloo. Mhm. ñu xool ni ñun ñetti candidat la ñu am suñu zone géographique ouest africaine muy Côte d'Ivoire muy Mauritanie muy Sénégal te soo xoolee Côte d'Ivoire dafa am frontière ak Libéria am frontière ak Sierra Leone am frontière ak Ghana am frontière ak Burkina Faso ba pare xaw am sax frontière loolu ci gannaaw loolu ak Togo loolu dëkk yooyu ay balcon Côte d'Ivoire la ñu te Côte parce que seen li ñuy lekk yëpp Côte d'Ivoire lañ koy jëlee ñun ñu am frontière fii ak Mali am frontière ak Mauritanie am frontière ak Guinée ak Guinée-Bissau ak Gambie mais wóoru la ne yow yow ñun ñii tey Mali dinañu votel wala Guinée dinañu votel ma loolu moom leeroon na ma ni wóorul. d'accord d'accord donc donc léegi donc les les les chances étaient pratiquement éparses éparses comme ni ñu koy très divisées en Afrique de l'Ouest te pourtant nee nañu Augustin euh, candidat bu nekkoon euh, favori jàppoon nañ ñu bari jàpp nañ ne favori la woon sax. non il faut il faut relativiser favori il faut relativiser parce que tey mun naa ne Augustin dinaa ko voter ñu dem ba ci biir ma changé gis nañ fi ayatu coupe du monde 98 muy muy muy ñu waa waa UEFA sax Lennart Johnson ngemboon ko. Mhm. muy xeex ak Blatter. Afrique ñu ne 54 voix pour pour pour pour pour kii pour euh, Ayatou Issa ah, Ayatou mais ñaata voix la am xaw ma ay treize xaw ma quatorze voix sur cinquante quatre voix loolu moo lay won ni un vote tant que nit ki sànni la bul ko wóolu wóolu sa bopp rek xamal sa bopp te surtout on est en Afrique xam ngeen li mu leen wax la preuve ñun même le président de la fédération nigérienne de football de moom moo porté candidat Mosepe te pourtant Afrique de l'Ouest la nekk dans l'espace CEDEAO donc vous donc il faut relativiser ni xool ni protocole de kii bi euh, pratiquement day indi déchirure day indi cassure entre les pays parce que seen président yi d' abord diplomatie sur le plan diplomatique ñoom dañuy déggoo soo xoolee li ñu folee falee ay conféges soo xoolee ñu ñuy falee ay confémènes yenn structure dañuy déggoo sax ñoom sur des protocoles kon donc bu président yi mën a déggoo ay sur les protocoles président fédération yi d' accord ñoom ne war nañu ñoom gisee pour waxtaan seen biir ñu dem Rabat ba tënk la ñuy tënk est vrai que premier critère élection vote la mais bu ñu demee ba ñu ne war nañu mën a wut consensus parce que ñi ko seex ñoo ko d'accord ñu wut consensus. tey ñu bëri jàpp nañ ne FIFA moo imposé candidat gi fi nekk. ah xam nga FIFA imposé wul dara xam nga FIFA boo xoolee texte FIFA yi gars yi ay ingérence ak ay yooyu parce que FIFA tey moom moo ŋënk fédération yi parce que FIFA fédération yi foofu lañ njëkk a dem fa la ñu affilié les fédérations ne sont pas affiliées à la CAF les fédérations sont affiliées à la FIFA et la FIFA à demandé à ce qu'on crée les confédérations bi mu xoolee ne dans toutes les zones am na ay ay fédérations affiliées à la FIFA ñu créé ay confédérations la confédération européenne muy UEFA CONMEBOL en Afrique en Afrique CAF ainsi de suite CONCACAF ak yooyu yëpp ba Australie dans les cinq continents ñu créé fa ay confédérations bi ñu fa confédération yi maintenant confédération yi ak FIFA ak fédération yi coopération la mais coopération bi daf koy jiital dafay mel ne tey ñu la Sénégal par exemple la banque mondiale moo koy perfusé nga ni banque mondiale du am droit de regard ci moom sur comment il gère au moins ses finances non attends parce que aussi souvent tous les projets africains tous les projets africains du football africain sont financés par la FIFA amul benn boo xam ne kii moo diw moo ko financé woon c'est la FIFA qui finance quand tu vois le projet Forward 2.0 ak le projet Goal yooyu yëpp donc loolu ba tax na aussi soo xoolee dans le football africain nous l'État a délégué ses pouvoirs et football bi tey Sénégal état état du Sénégal moo football bi. Mm-hmm. nit ñi il faut nit ñi xam ne état Sénégal moo moom football bi daf ko délégué ay nit bu ko neexee mu retiré ko ne jël naa ko donc FIFA. moom mooy euh, seen c'est la mère moom mooy seen yaay. Mm. c'est comme aujourd'hui le CIO rek CIO soo xoolee le le le le comité international olympique moo ngëmp ñooñu ñëpp tey CIO mun na mun na suspendre FIFA xanaa xam nga loolu mun na suspendre FIFA te ñu bari xamuñu ko ci texte yi barki démb la fédération internationale de boxe dañ ko suspendre c'est le CIO qui a suspendu la fédération internationale de boxe. mun na fu mun na suspendre fédération euh, FIBA mun na suspendre FIFA donc nañu xam ni nit ñi il faut ñuy gëstu ci texte yi di xool lan la texte yi wax. d'accord Mbaye tey jii euh, yaa ngi koy wax sànq Sénégal mu am lu njëkk ci euh, CAF muy première vice-présidence muy poste boobule Augustin Senghor doon ko tey ndax football sénégalais war nañoo mën a xaar gannaaw fal googu mu am évolution. non football sénégalais ñoom ñoo war Euh, d' abord ñaanal Augustin dimbale ko parce que nit bu ñu falee sa ay compatriote sa sa sa wala sa concitoyen ñu fal ko ñu ne kii kat il jouit d'une probité morale kii ñëpp ko respecté ñëpp ko jox cër. da koy mm. ñaanal yàlla d' abord taxawaay bi mu taxaw mu gën ci taxaw mais yaa koy jàppale yow nan nga koy jàppalee bul xool ne tey ñun fal nañu Augustin rek ñu dañu war a bénéficier ay privilèges non nañu continuer liggéey jàppale ko ànd ak moom bu ñu liggéeyee nit ñi dañ xam ni kat ñii ñi ngi liggéey ñu gën leen dooleel wala ñu gën leen jàppale parce que ñun tey man loolu mooy sama perception sur la nomination de Augustin bu ñu xalaat ne woy man Augustin fal nañ ko rek woy football bi dafa war a dox wala non dañu war a favoriser lépp lu ñu war a am nañ ko am honnêtement lépp lu ñu war a am nañ ko am ci ngor lépp lu ñu war a am nañ ko am ci dignité pour chaque fois ñu mën a yëkkat suñu bopp maintenant football sénégalais. Hmm. ñoom ñoo parce que aujourd'hui le monde a montré que ni billetterie bi amul solo dans le sport. Mm. parce que boo xoolee la Ligue de champions boo xoolee toutes les manifestations qui se passent aujourd'hui en Europe sont se déroulent à huis clos la donc léegi les dirigeants ñoom ñoo war a xalaat. teewul am na lu yàq ci koom-koom gi Mbaye Jacques. non forcément koom bi ñëpp la laal du sport bi rek la laal fépp la laal mais ñu ñoo war xalaat tey par exemple ñoo la jox exemple man mi jëg juddoo Medina yaroo Medina jaraaf de Dakar bi ko créé en 1969 ñu il y a ans ou onze ans mais war nañu mën a ubbi capital bi xool ne am na ay doomu Médina yoo xam ne peut-être ñoom bëgg nañu dugg ci capital ñu ne bon cinquante pour cent yi ASC bi moo ko moom mais les autres cinquante pour cent dañ koy ubbi parce que bul nangu mukk kenn majoritaire nangu toujours association sportive et culturelle bi majoritaire parce que su kenn majoritaire ëllëg moo moom structure am moo ko moom association bee ko moom mais cinquante pour cent yi la ñu ubbi au capital bu ñu ubbee cinquante cinq cinquante pour cent au capital. Mm. ku xaalis mais par exemple tey boo dugalee sa xaalis yaakaar. ñu defal benn académie di former ay jour xëy na mun nañu ay ay placement jour placement jour yooyu moom mooy tax moom am ay retombées parce que nit ñi il faut ñuy xalaat par exemple di di jaay aussi ay abonnement xam nga tey man mun nañ ma ne lañ lay jaay abonnement annuel dix mille wala quinze mille ma jënd ko su ko jëndee du ma dem match yëpp xëy na mais war naa mën a jaraaf saa yu see ma dem il faudrait que les gens di réfléchir sur les concepts parce que en Europe par exemple quand tu vois aujourd'hui Barcelone ñan ñoo ko Barcelone supporter yee ko moom Barcelone supporter yee ko moom c'est pas comme Paris Paris nga xam ne ay Qataris ñoo ñëw investir mais Barcelone c'est des sociaux ñoo ko moom donc lu ñu wax lay mooy am. D'accord. donc il faudrait que nit ñi di xalaat loolu aussi gis di def aussi ce qu'on appelle le merchandising di jaay ay produits dérivés. ci quartier yi par exemple tey ñaari tali commencé woon nañ ko def c'était bien da nga gis ñaari ku romb yëpp maye ñaari tali ngay sal ASC Pikine doon nañ ko def mais xalaat yooyu moom la ñu war a gën a développer le football ba pare aussi di nouer des partenariats avec aussi coopération nord sud di xool les les clubs qui sont en Europe les clubs qui sont partout qui sont des clubs professionnels en Europe ñuy ñëw ñoom ay partenariats dans le cadre avec euh, par exemple Diana euh, Soufour euh, Dakar Sacré-Cœur avec Lyon par le passé Yego l'avait fait avec saint c'était c'était c'était qui marchent et loolu moo lay permettre yow nga mën développer sa football parce que aussi il faudrait voir aussi que l'État du Sénégal a beaucoup investi dans l'équipe nationale A et ça a porté ses fruits parce que les gens se sont qualifiés à la coupe du monde ñu am ay presque de presque six à huit milliards tey que moom la ñuy permettre ñi ngi financé les clubs ñi ngi financé le football amateur ñu ngi football finance ñu ngi fay arbitre yi loolu da lay wan ni donc football soo investir soo investir dafay am retour d' investissement boo xam dafay rentable. donc dirigeants yi ñoo war a xalaat parce que am nañu ay dirigeants tey. il faut saluer aussi la magnanimité l'intelligence et les initiatives des mhm. comme par exemple Augustin Senghor Ablaye Sow xam nga comme par exemple Sayer Mbaye Diouf Dia ñoom ñoom Djibril Wade ñoom Babacar Ndiaye par exemple xoolal Teungueth FC aujourd'hui ils ont un modèle boo xam ne qui est en train de porter ses fruits parce que pour la première fois dans l'histoire ñu dem Coupe d'Afrique dugg Ligue des champions ils vont gagner quelque chose justement euh, euh, ci sport local boobu la ñuy jeexalee nga euh, ci tënk rek Mbaye Jacques tey ñu ne danañ delloowaat li nga xam ne mooy public bi maanaam sport danañ ko football bi danañ ko delloowaat public am ci ànd ceeg mesure barrières yi ndax loolu dina yemb dina yemb xamul tax dina yemb parce que hmm. lépp xalaat la xel la ak àndandoo xool ñun ñëpp fan la ñu lan mooy possible ak lan moo possible gis nga nit. Hmm. su fekkee da nga am projet da ngay xam ni ndax lii c'est possible wala si c'est pas possible si c'est pas possible nga xool ni fan nga mën a jaar ban yoon maintenant le ministre comme il l'a déclaré hier dans sa déclaration nee na leen. dinañ ubbi stade yi bu ñu ubbi stade yi toog waxtaan ak comité olympique waxtaan ak club yi waxtaan ak fédération yi. Hmm. la ñuy jël respecter ak tout les en tout cas tout tout tout ce qui a été prévu pour au moins essayer de combattre cette pandémie là maintenant su fekkee ne stade bi par exemple je prends l'exemple par exemple de stade par exemple euh, de Rufisque wala yooyu su fekkee wala stade de Thiès bi def mhm. fekkee dix mille places lay def war nañ fa mën a jël ba cinq mille wala six mille sept mille gars yi respecté la la distanciation maintenant suñ ko respecté ñu xool ne parce que aussi public bi nam na football. Mhm. public bi namm na làmb namm na basket parce que bëgg nañ ko dem gisi parce que des fois da ngay toog le week-end amoo dem. donc je pense que buñ ci toogee waxtaan autour d'une table entre le le ministère des sports le comité national et les fédérations ñu xool ak aussi le ministère de la santé ak le ministère de l'intérieur parce que ñooñu c'était c'est des acteurs du monde sportif parce que tey il y a dans le sport il y a la sécurité euh, euh médicale il y la sécurité publique donc ñooñu ñëpp da leen ciy boole tënk nga waxtaan ak ñoom ñu xool les dispositions ñuy jël nga xam ni bu dee football nañ ko def bu dee basket nañ ko def bu dee làmb ak beneen sport nañ ko def mais yëpp ñu respecté waale les mesures barrières parce que pandémie bi ñu koy xeex ba léegi jógoo fi. d'accord Mbaye Jacques Diop ñu lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi leen di gërëm di leen sant.